Euh, ñu ñëw ci CNG bi actuellement taxawaayu CNG bi. CNG bi nga xamante ni ñoo fi nekk actuel. Mm. ak ki nga xamante ni ñoo fi jógee. Mm. boo leen doon comparé. Mm. nan nga leen gisee. waaw ñi fi nekk ñi ngi ñi ngi dox ay jéego ñoom ndax itam dañuy doog a ñëw te nit ki buy doog a ñëw. Euh, doo xam lim ma ne wala lim bëgg. da nga koy bàyyi muy dox di dem ba waaye Alioune Sarr li fi def kenn dootu ko def ci làmb. waaw non du am. ndax Alioune Sarr dafa dafa maamee que li gën a am solo ci doomu aadama mooy ñett yi yëpp dafa nekkan ci moom. Hmm. nit ki boo mee dignité ñàkkoo dara. Hmm. fees sa place. Hmm. tey jii ñi ngay ñëw di la neex yaw ki nga xalaat ne moom moo la war a jox te nga war koo jox ki la war a jox nga yëkkati di ko jox. kooku yaakaar naa du la jaay dara de. loolu nag daa nekkoon ci Alioune Sarr Alioune Sarr dafa feesoon yàlla dénkan na ko mu am teraanga. am dignité ba pare fees place Mm-hmm. li nga xamee ne kenn ku ci nekk site internet bu la neex nga taxaw sànni ku la président sànni ko kaddu mm-hmm. Alioune Sarr même boo ko daan sànni kaddu daawul nekk kuy tontu wala kuy nangam mais moom boo xam ne tey jii comme neex nag mën ngaa jëlaay baat sànni ah mm-hmm. moom xamoon na li mu bëgg te nekkoon na nit koo xam ne dafa nekkoon ku jafe mooy daana la woo di la déglu Alioune Sarr daan gis engouement yuuxu ñëpp yuuxu mais danaa leen kaay leen waxtaan te njiit noonu lay fonctionné waaw mais nag li fi nekk nii Euh, dafa bari ay détails làmb ji mooy mooy ñi jiite làmb ji léegi daanaka léegi da nga gis promoteur yoo xam ne sax su Bira Sène tey ji am loo xam ne Bira Sène bu ko war a dénoncé am na ñoo xam ne mën nañoo xelal ne tëb Bira Sène dem ci ministre bi seen intérêt ñoom te loolu dafay am. dañuy dem ci ministre bi. kon y a moo tax làmb daal li wérte wóor mooy li may wax sama rakk yi sama ginnaaw mooy nanu fonkaat métier man nekkan téye ko ak fukki loxo juróom ndax làmb du dem ci kanam ci ginnaaw la jëm Hmm. waaw làmb ñaari tànk benn tànk la desoon ak benn loxo gars yi daane nan loxo bi ci weer wi ñu génn nii benn loxo ci des fi ñu doon li fi des di ay finition la yoo xam ne dañ ko àggale rek ndax làmb ji boo ko xoolee tey juróom benn ci kaw ñoo xam ne duñ bëriwaat ñeentaat te bawnu te ñii ci suuf nii war a dem ci kaw hmm. li leen yóbbu ci kaw mooy ñun ñun ñun ñi nga xamee ne ñoo nekkan en tête hmm. war a defaraat làmb defaraat ko duñ ko defar làmb boo xoolee chaque jour ñaata nit ngay ñaaw ku ne ngi wax doo loo xam ne maam nga tey jii dañ koy wax ngir boo xam ne maam nga tey boole nit ak nit ñu ànd mm-hmm. tey li tax ànd ak nit euh, ku yor teraanga métti bu ma àndeek bàyyi ji say jii bu nu àndete suñu borom tax ndax àddina ñaar ñooy ànd il mm-hmm. faut loolu moo ko bind day boole ku yor dara xel ñu mm-hmm. dina yor teraanga te xel dëgg la wala nit yoo teraanga te du loxoom du am na foo ne maame mooy tax nga joti fa am xel mooy tax nga joti fa ki amam xel nag su moo la yóbbu boole laa kooka pour a jot nga bëgg a jot ñaar yooyu ànd mais léegi àddina soo àndee ko am alal sax ab welo sax boo ko yoree ñu ne moo ko ko jëndal waaw ngay dem feneen ci yeneen réew ñu ne noo diw moo ko yóbbu waaw te itam moo tax nag àddina ñaar bu ndee ànd hmm. faaw njariñ ñoom ñaar ñëpp dañuy jariñante borom xel day ànd ak borom teranga hmm. ñoom ñaar ñuy jariñante hmm. borom xel mi su manqué dara borom teranga te borom xel day am loo ne bu ko manqué rek mooy teranga lay manqué te bu amee teranga day yokkam xelam ndax million tudd million melo woon ni la tudd melo kon voilà jii koo fi gis mais nan defaraat daal toogaay xam ne dañoo bokk lu mënta séddoo